asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 22 janvier 2020 ñu ñëw ci yëglikaay yi moo xam sunu làmb la record ba ci Leewtoo TV bu dee kaay bi di sunu làmb la nag moom la olof Njaay di wax rek tontu du forox xamal la ngay wax waaye bul xam lañ lay tontu mu mel ni kii démb mbay cuun ma yore tafaatin di ko manaatise moo génnoon daal di xamal rëg-rëg ak waa këram ne ko defoo fi lu war a tax tafaatin di la jël mel ni nag tontu ba moom yàggul ndax rëg na ka ko yore ko manaatise tamit di paala jóob tontu na moom tamit rëg mu dëkk tafaatin moom xam na ko te itam weesul wan ko ne ko ragaluma la te ñime naa la ñu ne ko ñi nga xam ne nii ñoo ci des mu ne moo xam muy Sa Thiès wala guy gi wala Yékini Senior moom ay bàqaar maanaam ay ragal daal la leen kii nga xam ne mun rëg-rëg jàppe ne na ñooñu moom ragal lañu te ñoom ñooñu ma lim bi ñëpp rëg-rëg nee na daal ku ci dof dof lu ba lekk sama avance moom bombardé laa lay def sànni la ca àll ba jàll dem sama yoot lii mooy wax rëg-rëg malaan sa nag paala Jóob moom itam yokk yokku ca xarma karaw moom tafaatin la waxal nee na ko tafaa moom li leer ba leer moom boo ragalee rëg-rëg da nga koy wax ne na ko lii ngay wax yëpp ay deuxième la rek di wax naan ay fii faak du ma morom da ngay sóob nga gis doo moromam loolu waxi Palla Diop la ba tey jëmale ko ci li nga xam ne nii mooy diggante rëg-rëg ak ña nga xam ne nii ñoom lay dëkk waaye leneen loo xam ne tamit gis nañ ko wala keneen koo xam ne nii mu nga xëy di dëkk muy Moussa Ndoye bu ne na ñii daal moom jàpp na ne ñoom la war a bëreel te ay adversaire am lañ loolu waxi Moussa Ndoye la ci yëglikaay bi nga xam ne nii moom tamit moo di sunu làmb ba tey ci yëglikaay boobu gis nañ fa ki nga xam ne nii mbala boog loo xam ne ni daal gis nañ ko fa yëglikaay bi dafa defub jàngat ne na Fass day daa mel ne ñi nga xam ne nii ñooy famille Guèye ba moo xam mbay Guèye wala Tafa Guèye wala Abdou Guèye wala sax Malick Guèye nee na ñii moom boo nekkut ak ñoom ci jàmm jàppal ne bi écurie Fass moom dootoo fa neexle du samay wax nag sunu làmb moo ko wax leneen loo xam ne yëglikaay bi wax na ko ba tey ci diggante Fass googu ak Papa Sow nee na Papa Sow day diggante mag Fass demagul cëng dikkagul Mbaylaar te maanaam mu nekk nii moom fi mu taxawe baaxu ci yëglikaay bi moo xëy ñëw wax ñu lu mel ni ki noonu le waaye ba tey bu ñu continuer phase googu muy wax ka fa nekkoon nag deuxième tigre de phase di Tapha Guèye moom ab xeexam fi mu nekk ni daal fa ko jëmale mooy ca libération Luc Nicolaï maanaam daal ñu bàyyi ko mu génn ci kaso bi rassemblement ba ca nar a am daal yëglikaay bi mu ngi xam ne daal ka ko nar a jiite du kenn ku dul ki nga xam ne nii moom moo di Tapha Guèye mi fi nekkoon le deuxième tigre de phase waaye na leneen loo xam ne tamit dañ koy dem xam ne moo di record ci diggante Papa Sow ak Siteu dañoo xëy ne nii moo di Amadou Kati Diop Amadou Kati Diop nag mi fi yoroon Yaxya Diop Yékini di ko entraîné moom nag la mu xëy di xam ne daal nee na leen na ngeen tey ci Siteu de ndax Siteu moom yor na gauche boo xam ne ni lay am na ko ba mu doy sëkk sëkk kon daal kat yi mu ngay dànkaafu ki nga xam ne moo di Papa Sow waaye Siteu itam kat yi xamal na ko ne nga tey ndax nag Papa Sow am na expérience su làmb loolu moom am na ñu ne ko defet mu ne defet ñoom ñaar boo xoolee ci Papa Sow la gën a bon ndax nag moo jege retraite tey itam yàgg na ci làmb te bu daanoo dina métti trop ci moom waaye Siteu moom jàpp na ne même defet sax mënu koo wàññi lu bëri ndax xale la li ko defee ci avenir am ci làmb bëri na ba yegg ca lool loolu wa jàngatub Amadou Kati Diop la tey ci waxtaan woo xam ne seqoon na ko ak Abou ci yëglikaay bii nga xam ne moo di record ba tey record googu itam am na benn xale boo xam ne wan nañ ñu ko fa muy ki nga xam ne moom moo di booy bool numéro 2 ak ak mën a bëreem maanaam daal ay yokkom performance yi nga xam ne mu ngi koy def ci làmb ji moo xam dóor bi la moo xam simple bi la moom booy bool numéro deux yëglikaay bi ñëw na ci moom waaye beneen xale ngi boo xam ne ba ma defal la bagage moom lu mel noonu bi nga xam ne nii moom moo di sunu làmb waaye leneen loo xam ne nii gis nañ ko mu di jàkka jàkkaarloo bu nar a am ci diggante ki nga xam ne moo di Bour Sine bu Bawol ak Eumeu Sène Junior ci 2STV lay amee ci dimanche ji nga xam ne moom la ñu jëm waaye ay combat yoo xam ne tamit boo bëggee dëgg-dëgg régulariser nañ ko moo xam ñagas la ak ki nga xam ne mooy caatu waalo Ida fa jaar brise de mer numéro 2 moom lay wër amagu ko fils de Zale Lo caatu ngewel ama production ko tëgg maanaam Boubacar Niang régulariser na ko waaye tamit yëglikaay bi daal am na wala yoo xam ne daal taxaw na moo xam papa booy jinne la ak bébé bis mi waaye dañuy dellu fa nga xam ne nag moo di record record moom booy bool lañ ñu woon tey numéro deux mën a bëreega macha allah ak itam performance ya def waaye kera boo ñëwee mbuur ba gis xale ba mu demal demi final ñu koy wax tuuni tuuni itam day lakkale na ba yegg ci lool ndax nag jël ya mu daan kera ponkol ya rëy na vidéo ya ñu nga ca Leewtoo TV te yemu ca de demi final ba mu séq ak booy ba dugg boîte vocale moo tax yàgg maar nee naa la affaire bi lañ daan wax rek mën a bëre ci nit lay doon nga nangu koo tarbi waaye daal kere gis nga mbuur ay xale yoo xam ne nii doy gañu doy waar yéeme na moo xam Mor Sëy la moo xam Tony la moo xam Boy Bawal la ñoom gaañ dafaa maag xale yu doy doy waar siyaaka faal boy yi daal ndikiti bëre kese kese kese la ñuy def ak pakala ba nga xam ne nii mooy siñoor bu ndaw ndaw ba tudde boppam Papa Sow maar loolu la fi woon tey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 ñëw nag si jàngatu alintir ak euh, sunu lam sunu lam ginnaaw bu mu dalalee démb mbéycuun mi wax si euh, ki nga xam ne mooy rëg tey nag rëg dafa génn tontu ko depuis les États-Unis moom nee na euh, ngi expliqué la moo tax mu défier Tapha Tine mi ngi wax na tamit nee na kii di Sa Thiès Gouye Gui Yékini Junior nee na daal ay tàppet lañu ndax suñu ñemee woon jël avance ma jël avance am nee na nag mbër bu taxaw si si kanamam dina la dina la faxas a bombardé la. waaw rëg-rëg daal olof a koy wax tontu du forox xëy na wax ndax may ci nu waxoon dem mook mënaat seen Pala Diop yëpp wax nañu ah euh, li tax li tax mu dëkk tafaati ne da ko doon wan ne ko ñeme na ko waaw moom a ah, na droit dëkk tafaatin yaa ma waxoon moo am waaye itam yaakaar rëg-rëg digganteem ak Yékini Senior digganteem digganteem ak Sa Thiès digganteem ak ki nga xam ne nii moom mooy euh, guy gi loolu lépp ay combat yu war a mën a nekk la parce que il faut ñoom ñu daje bëre kanta ay ragal lañ nag wala Modou Anta bu Thiès dañ koy fàtte dafa bokk ci biir Modou Anta war a jël bëre ak moom parce que da ci bokk ama neex sekk bu tëngeej noonu waaw waaye nag comme mbëri ay ragal lañ xam nga mbër moom dañuy waxante ragal nga mbër yàgg na ko wax moroom mbëram waaye mën na bañ a méngoog li nga xam ne nii moom mooy na mu demee dafa fekk ka ni nag des fois ñu sànnent ay traat maa la mën bu ma la buñ xeexee mu duma la buñ bëree ma daan la ragal nga yooyu yàgg nañ koo dégg si làmb waaw ñu ñëw si des ñëw nag si écurie Fass écurie Fass ñoom nee nañu sunu journal bi dafa ne di Mbaye Guèye Tafa Guèye Abdou Guèye ak Mali Guèye noo teg ndawal foofu si écurie maanaam daal su dul ñoom écurie du dara waaw ah loolu de jàngatu yëglikaay bi la maanaam daal la famille Guèye la jàpp ne ñoom ñoom ñoo yëgri ku fa nekk te nekkoo ci seen i dispositif wala nga juboo ak ñoom sax nekkin fa du neex waa loolu nag ah lu doy doy waar la parce que itam yaakaar naa ne eh, est-ce que noonu la war a deme yaakaaru ma ne noonu la war a demee parce que bu ñu defee benn association pour sport loo gis nag am na ku ko fondé amul lu ci kaw àddina lu nit dul fondé yaa ngi dégg lu mu mën a doon nit a koy créer samp ko soo ko créer samp ko nag pour nit ñi war koo jëriñoo yaakaar naa waratul nekk sa moomeel ba tey maanaam. ñu mel Leewtoo rek. voilà waaw xam nga Leewtoo eh, boroom sanc ko tey pour que ne rek. képp koo xam ne ni neexoo ko rek waaw wala wala mu ne man lu ma neex laay def loolu yaakaar naa warta am rawatina association boo xam ne sport la te Grifaas noonu la demee waaye nag da dañuy jaaraamaal ki nga xam ne nii moo ko sanc muy mbéy gi di ko ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram ndax tamit am na mérite waaye man nag jàpp ne est ce que noonu la demee maanaam ku leen neexul dootoo fa nekk yaakaar yi ah fooguma ko waaw waaw ah, a internautes loo xam ne du suñu domaine te duñu sonk du suñu compétence itam nag mm-hmm. waaw euh, journal bi tamit ñuy xayla xamale ki nga xam ne mooy président association des muy Moustapha Gueye mi ngi préparé nag benn marche bu rëy rien rek pour a euh, libérer événement fee nga xam ne jàpp nañ ko si prison bu nekk euh, Thiès euh, Saint-Louis. yàlla na yàlla def marche boobu su amee yàlla na commencé bismillah rahmaani rahim te jeexa alhamdulilah rabbil alamin te génn bu lig ni ko laay topp ci ndax lu ñu waxoon démb suñu waxee tey rek lig moom dañuy ñaanaat yàlla suñu borom mi ñu sant ñu koy ñaan yàlla na ko yàlla génn fa mu ne mu ñaat ci ñun parce tamit am na lu muy def def ci réew mi am na lu muy def si làmb ci ah, ñu jóg commencé mars nangam nangam coow kon tamit tam yaakaar naa ku toll ni léegi tey ci milieu bi ñu ne su lu mel ni arrivé ci kawam ah wares naa mën a ñaan jéem a dox doxu ñaxtu ngir ñu bàyyi ko mais lépp itam nekk ci kaadaru maanaam citoyen maanaam doxu ñaxtu jaar ko fi nga ko war a jaar ñu jox la ci ndigal encadré la nga def ko mais ñu xam ne tamit bañ koo def ci loo xam ne daal dañ koy def ci doole wala ci lu ma ne parce que am réew la ñu ne te réew mi dafa am ay ko tënk yoo xam ne ni ku ci man ci sart ci nga war a jaar Babacar suñu jógee si sunu laam nañu dem fi nga xam ne mooy record record dafa dalal ki nga xam ne mooy Kati Diop nekk ancien coach Yékini nekk technique école de lutte moom daal nee na mi ngi araftu ki nga xam ne mooy Papa Sow na moytu gauche si site bi. waaw nee na site gauche bu doy waar la yor bu formidable waaw loolu am na moom loxo gauche bi moom c'est waaw c'est danger moom danger la Amadou Kati Diop nag defe naa tey su waxee ci làmb da cee a wax ndax defe naa bi tafaa gi toll ci ay diggu moom la woon. yaa ngi dégg moo jëlee Zall moo jëlee Zalloo ca kaw la xaw ma Fatick ba mu dajeeg Yékini yaa ngi dégg indi ko Ndakaaru ba mu wala laa bëgg a wax yaa ngi dégg moom moo indi Yékini parce que Zalloo ko daan kere moom moo yóbbu woon Zalloo drapeau moom moom la woon kon moo lay wan ne kon moom am na xam-xam yor Yékini ba mu dégg roi des arènes toog 15 ans de règne kenn daanu ko kon tey bu waxee am lu muy moytu la Papa Sow war na ci bàyyi xel effectivement te Siteu yor na guus bu mi ngi af tamit ki nga xam ni mooy Papa Sow nee na moo ci defet parce que mi ngi en fin de carrière te tamit defet baaxul si moom. waa defet day baaxul ci ñoom ñaar ñëpp waaye nag am na ci ku mu gën a metti comme ni mu ko waxee parce que bu dee papa la moom dafa jege fu muy demee retraite kon tey yaakaar naa su amee defet li des ci làmbam dina xaw a jaxasoo kon moom defet bi xëy na mën na gën a metti ci côté am ci lu ñuy wax mais si tey itam baaxul ci moom waaye nag xëy na moom mi nga xam ne moom moom moo ëpp at yu mu war a des ci làmb xëy na ci moom lay gën a sedd que Papa Sow kon daal li ñu leen di wax mooy yàlla nañ fekkee combat ba te tal ko di ñaanal Pape Abdou Fall mi ko tëggit yàlla na ko réussir parce que itam tëgg na combat boo xam ne daal combat làmb dëgg dëgg dëgg la tëgg moom Pape Abdou Fall Euh, journal bi aussi abu mu ngi ñuy xamal ginnaaw euh, euh, galaat yi Yékini bu mu organisé fee si mbuur nee na daal booy bawal daal def na fa performance bu bu bu rëy ndax ginnaaw mu daanee assurance Sélé la ak Goro Sok dem na daal ba final tasante ki nga xam ne mooy mooy franc waaw booy bawal numéro 2 vraiment mbër la te tamit mu ngi ci yoonu nekk champion bu mag ci làmb parce que kere defe naa ñu fekk nañ ko mbuur te boo xoolee ñooñu mu rangale ñëpp daal leen ci benn tàkkusaan ah defe naa du ñun lu yomb déedéet du ñu ay como mu mën leen a finaa finalu ak Franc Franc daan ko loolu yaakaar naa ne xale la bi nga xam tamit mu ngi wane boppam bu baax a baax te Bébé Siteu dafa ñëwaat fi nga xam ne ni moom mooy terrain gaal gi wane fa boppam kon booy bool dañ koy wax félicitation mention spéciale li leen wax ne ñoom mbëri yëpp affaire yi noonu la tey mu ngi bëree lutte avec frappe di ko daan di dem ci lutte simple bi di compétir te bu bëree nga xam a bëri ndax kera mooy ba muy bëree tuuni damaa yuuxu ndax la ko tuuni def lépp ci ay kele mu génne ko ba far ko daan ah moo lay wan ne booy bool itam yor na bagage am na sax ku ma gis mu ne ma xanaa xamoo booy bool ma ne ko maa ko yar xam naa ko bu baax ndax xam naa ko ci làmb ji te xam naa li mu capable waaye nag dafa dama gis kera xale bu doy a doy waar Tony man moom Tony moom daf ma impressionné fi mu nekk nii moom. waaw kana suñ jógee record dañuy dem fee si Leewtoo point net Leewtoo point net ni ñuy jox euh, xibaar que drapeau tournoi CEDEAO bi amoon ni Niger ñaar at si ginnaaw Sénégal moo koy moo koy organisé mois de juin bi fee si arène nationale Babacar. yàlla nañ ko fekkate tal ko. Babacar nag si kàddu yoon leen tàggoon leen jox dig daje suba incha allah mais balaa boobu may nuyu sama yaay merci nuyu sama doom Mouhamed Diouf nuyu Astane Cheikh ki nga xam ne mooy Abdou Gueye Baye Fall Diamma Gueye li nga xam ne euh, mooy Djibi Bamba Mbaye aussi maa ngi koy nuyu di nuyu ki nga xam ne mooy samay doom maam jaara Penda grand Fallou Rokhaya ak ki nga xam ne moom mooy maam Diarra Babacar. aussi am nga yóbbante euh, Pierre bu baax di la bëggee di seet kam euh, ki nga xam ne moom mooy Ñoxor euh, Diouf xam nga temps yi yaram bi dafa sutante Babacar. yàlla na ko yàlla wéral moom Ñoxor moom moo jiitaar bi yàlla na ko yàlla wéral barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam wéral képp ki nga xam ne da ngaa wéra di rek xam nga ak ñi ci kaso yi tamit yàlla yàlla teggi leen loolu xam nga ci ñaka yeyoo mais di ñaanal képp fu waay mën a nekk rek yàlla na la yàlla defal jàmm Malick maa nuyu moom nit bu baax la Malick arbitre di ko nuyu di nuyu arbitre yëpp ñoom Dramé ñoom Khalifa ñoom. ki nga xam a euh, ne tam ñoom ñoom ñoo ñuy bégee ñooñu amuñu seen fay li tax ñu war a mën a góorgóorlu ci li ñuy def te di ko rafetal mooy ñi ñuy suivre parce ku mel ni Jibi Bamba moomu di suivre nit mu jaral la nga sol sa dàll indil leen ay yére indil leen ay omo ay parfum loolu defe naa autre chose est-ce que dégg kon defe naa te gënuñu nit ñi quoi kon micro bi ñuy yor war nañ ko gën a respecté et puis respecté ko mooy respecté suñu bopp respecté suñu liggéey mu jaral lu lu ne gën ko rafetal parce que loolu mooy àddina lu ñaaw kenn bëggu ko di wax ka ni daal Modou Diouf Petersen moom tamit maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu sama rak sama doomu ndey Saliou Khoule borom Zik FM ma fàtte di bi ki nga xam ne nii tamit moom mooy Amdi Amdi Kolobaan doomu ndey Saliou Khoule maa ngi koy nuyu